liggéeyam alors bu euh, yembee rek ñu jël euh, Mamadou Lamine Dianté euh, voilà kon ci kanam tuuti dinañu ko am su fekkee tamit bëgg ngeen réagir mun ngeen woote voilà donc Mouhamed Ben Diop kenn ci candidat spoliés yi mi ngi ak ñun ci ligne bi ñu ngi lay nuyu Mouhamed Ben Diop. jërëjëf euh, ci disponibilité bi alors euh, conseil constitutionnel jël na dogalam sànq euh, wax ne élection présidentielle yi nañu ko amal ñaar fukki fan ak juróom 31 mars autant pour moi président jël dogal moom ne ñaar fukki fan ak ñeent weeru mars la bëgg ñu amal élection yi waaye yéen spoliés yi est-ce que mun nañu ne seen yaakaar dafa tas parce que yéen a ngi doon séentu xëy nañu tëggaat processus électoral bi ni ko dialogue ba amoon ca jam ñaajo digle

Mm-hmm. nekkul doon moom habilité pour mën a jël date boo xam ne ñoom ñooy convoqué le collège électoral euh, gis nga ne nee nañu le trente et un lañ jàpp ci loo xam ne gis nañ ko benn décision plus euh, wax ne ne tamit bi ñuy parle conseil conseil conseil des yi mm-hmm. président jàpp na beneen date ak lu mu ci mënti doon lii tax ñu ne jàpp nañu date day fekk tey jii ñoom décret boo xam ne teg nañ laa daal président mënul teg ay la table boo xam ne respecté wu li xam ne moom mooy code électoral article L 137 président mënul def collège électoral boo xam ne daf koy woo te mënul respecté loolu nañu fàttali nit ñi ne mm-hmm. amul fenn ci disposition loi bi buy wax na leen ne mën nañu woote processus électoral bi de manière sonnée amul mm-hmm. donc pour ci toll nañu wax nit ñi li nga xam ne moom mooy dëgg ak xam ne moom moo su mu nekk nii nag ci lañu doon ñu xam ko laam-laamee boobu ba léegi nag. ñu doog a nekk nag bëri crise boo xam ne tey jii moom mooy am entre l'exécutif et le ci dak yi wuute notamment ba crise bi am na ba noppi kay am na ba noppi ndax tey bu ñu toogee def confrontation entre ñaari date yi xam ne moom mooy circulé ñu naan le vingt quatre ñu naan et un mooy war na ne déjà ak ne warul am te ñoom ñaar ñëpp bu ñu delluwaatoo ci li nga xam ne moom la moom la fi euh, euh, code électoral wax wala ñu delluwaat ci li nga xam ne moom la euh, conseil bi moom la ko ñu tudd la constitution bu hmm. ñoom ñaar ñëpp kenn jàpp ci date boo xam ne dëppoo ndax li nga xam ne moom mooy charte charte donc loolu dafay confirmer waat ne ni kon mu ne ni li ñëpp dafay jot yi nga xam ne moom moo am jafe-jafe yi nga xam ne moom la

waaw donc loolu bu nekk nii ah, ñenn ñi rafet ñi rafet xel ñu naan euh, surtout décharge yi Amadou Ba kandi yi nga xam ne mooy candidat pour que ñu mun mais tamit dañuy jàpp ne ngi am ay audio yoo xam ne ñu gis këri ci ci àdduna bi xam ne dafay gën a institution de solution bi nga xam ne mu ngi ko doon wala relation bi nga xam ne ñu ngi koy ji ci Amadou Ba ak le conseil kon fois boobu am na ministre boo xam ne ci assemblée bi siégé pour ñu mën a voter la loi d'amnistie mooy wane ne kon am na benn xeetu précipitation boo xam ne jëf naan ci diggante bi def naan li ci kanam alors loi d'amnistie bi yow juriste nga lan moo ci sa xalaat euh, famille victime yi ñu ci naturellement parce que amul enquête xamaguñu lan moo faat seen ay mbokk euh, ñi ñu toroxal torturer leen gaañ leen yàq seen peut-être àdduna wala seen ay yenn cër itam loolu la ñu sàkku mais euh, état forcé na ba loi bi jàll na sànq ci assemblée nationale juriste bi nga doon cette fois ci moom lay interpeller lan la ci xalaat biir alors que même histoire du Sénégal waa doon ni si suñu si jëlee dafa doon fekk mu nekk sur des faits yoo xam ne fii jeune bu ba pare mën a xam tey fan la responsabilité nga hmm. maa ngi dégg ci exposé ministre bi di wax naan naan mun nañu sax poursuivre sur le plan euh, civique ñi nga xam ne tey jii hmm. pour permettre leen ñu mën a am ay lampaay mais balaa ngay topp nit yi aussi il est fait que d'abord mu am une condamnation boo xam ne mooy permettre à ce que ñu mën a situer les responsabilités hmm. donc fi mu nekk nii loi bi sañ ko sañ ko voté dafa nekk loo xam ne dafa prématuré man ci njëlbeen bi def naa ñëpp xam nañu sama position dama mos a taxaw ne je suis contre toute mm-hmm. ndax il faut pas que l'impunité nekk loo xam ne dañ koy érigé en règle dans fi jot a mille vingt et un ba léegi yi mm-hmm. ci woon ne sax par nekk na loo xam ne c'est encore présent dans la na bàyyi lu ñu mel noonu mais mais dañ koy jël dugal ko presque ci boo xam ne du am benn enquête ak di centaine de nga xam ne tey jii avocat yi magistrat yi procureur yi jaaw nañ ko ci dossier yooyu ñu xëy su ko yëpp mel ne nañ ko teg loolu jaaduwul te du du cër par rapport ak li nga xam ne moom mooy vraie démocratie Sénégal hmm. kon nag loolu marché yi loi ko ñu condamné ak c'est boo xam ne tey jii dañ koy te incha allah quel que soit xam ne moom moo nekk ci ginnaaw. Hmm. tey man bokk naa ci nga xam ne ragaluma ñu naan malgré bi ñu naan ay c'est pour la paix intérieure ak yu mel noonu. Hmm. man xaw tey contre loi boobu. parce que nekk na loo xam ne àttewul dëgg su fekkee noonu. Hmm. jërëjëf Mouhamed Ben Diop. jërëjëf soxna ñu ngi lay gërëm bu baax a baax euh, nga bokk ci candidat spolié yi bëggoon ñu tëggaat processus électoral bi bu ko defee euh, seen euh, ay dossier ñu mun ko xoolaat loolu nag conseil constitutionnel dafa mel ni daal dina koy gàntal ndax wax na ne processus bi dafay wéy 19 candidats yi mu retenir woon ñoom ñooy dal di dem ci élection présidentielle bi conseil constitutionnel jàpp ne fanweeri fan ak benn la ko war a tëgg wante nag jiixi jaax ba tey am na ndax euh, président de la république daal dinay jàpp moom nga beneen euh, date muy euh, ñaar fukki fan ak ñeent weeru mars alors est-ce que yëg na ko wala yëgu ko ba muy jël boobu boobule décision yëgoon na li conseil constitutionnel dogal loolu lu desee leer la wante fi suba certainement dinañu gindeeku ci li président Macky